lii mooy buntab li dikk hmm. ci bijaawu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. ñetti xadis hmm. dikk na ci ci téere bi nee na xaddathana nettali nañu muhammad ibnu bashar kooku ne na xabaare nañu abu daawud kooku ne axbarana xabaare nañu mm. mm-hmm. mm. hammaam mm-hmm. sëriñ boobu de hammaam nettali an qataadata mm-hmm. jëlee ci sëriñ bu ñëw qataadatu qaala mu ne mm. qultu wax li anas ibni malikin hmm. àndandoow yonantu bu mag boobu sallallahu alayhi wa sallam sayidna hmm. anas hmm. radiallahu anhu hal xadaba rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam mos naa cuub kawaram li ñuy wax ñuulal tey mm-hmm. wala fuddan mm-hmm. wala lumoo lumoo mm-hmm. ndax yonentu mas naa cuub kawaram qaala mu tontu ne lam yablug dhalika yeggul foofu maanaam yeggul ci béjjaaw fu tax muy soxla di ñuulal innama mm. li fi nekk mooy amoon na mm. shay'an dara hmm. fii suduxayhi hmm. ci ñaari suduxam hmm. as suduxu mooy euh, diggante bi nekk ci diggante koñu bët bi ak euh, nopp bi koñu bopp boobu moom la tuddee as suduxu Hmm? Mm-hmm. espace bi nekk ci diggante nopp ak mm-hmm. bët mm-hmm. dégg nga karaw gi wàcc ñëw foofu nee na foofu karaw googu amoon na tuuti ci béjaaw rek waaye boppam nag jotuta béjaaw ba mu koy ñuulal walakin abu bakrin wante seydna abu bakar radiallahu anhu xadaba cuub na waaye cuubeewut ñuulal de bil xinnaa'i mm-hmm. ci fuddan mm-hmm. wal katami mm-hmm. ak gàncaxu katam googu imaam busiri di tudd ci burdaam law kuntu aalamu naka la ko waxee katam euh, law kuntu aalamu anni ma uwaqiruhu law kuntu aalamu anni ma uwaqiruhu katamtu euh, attana bayta ba de ca fa inna amaarati bi suui ma taadat min jahliha bi nadiri sheybi walharami wala acaddat min alficli aljamili qira dayfin alamma bi rasi gayra muxtashimi law kuntu aclamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bilkatami katam gàncax la goo xam ne dañ koy ñuul dañ koy cuubee bopp dañ koy cuubee bopp hmm? mm-hmm. mu ne Aboubacar moom jëfandikoo na mm-hmm. gàncaxu fuddan googu mm-hmm. ak gàncaxu katam dégg nga waaye yonentu moom sallallahu alayhi wa sallam nee foofu nee na xaddathana nettali nañu isxaaq ibnu mansuur wa yaxya ak ibnu muusa qaala ñoom ñaar ñu xaddatanaa nettali nañu abdurazaq sëriñ bu ñëw abdurazaq kooku nettali am macmarin jëlee ci sëriñ bu ñuy wax macmar mu nettali an thaabitin jëlee ci sëriñ bu ñuy wax thaabit mu nettali an anas ibni malikin jëlee ci sayidna anas radiyallahu anhu qaala mu ne maa cadadtu hmm. limuma hmm. fi rasi rasulillahi ci boppu yonentu yàlla muhammad hmm. sallallahu alayhi wa sallama wa lixeti ak ci sikkiñam illaa arbaa asharata lu dut fukk ak ñeent shacaratan ci kawar baydaa yu weex yonentu daal sallallahu alayhi wa mm. fexe naa ba konte mm-hmm. ñaata kawar yu weex a newoon ci diggante bopp bi mm-hmm. ak sikkim bi mm-hmm. waaye konte ci mm. lu dut ñe fukk ak ñeent boo konte daal diggante li ne ci bopp bi ak li ne ci sikkim bi mm. ci kawar yu weex nee na ëpp ñu fukk ak ñeent mooy wane ne kon Eh, béjjaawutoon mm-hmm. ndax fukki kawar ak ñeent mm. nekk yi ne ci bopp yi nekk ci sikkim mm. mën naa am sax kenn du ko kenn du ko gis mm-hmm. Mm-hmm. Hmm? danañ ko laaj ci beneen hadis ndax yonentu mos naa cuub mm. mu ne yonentu gisul ci béjjaaw lu dul lu tollook fukk ak juróom-ñaar wala ñaar fukk ci kawar yu weex yoo xam ne ñu ngi woon ci kanamam sikkiñam mhm. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mhm. mel ni ñaareel sikki mooy njëkk mhm. am bee jaaw bopp nee na xaddatanaa nettali nañu muhammad ibnul musanna mu ne axbaranaa xabaare nañu abu daawuda mu ne xaddatanaa nettali nañu shucbatu imaam shucbatu hmm. mu jëlee an simaakin hmm. bini xarbin hmm. qaala mu ne samictu man de dégg naa jaabir ibn samurata saxaabiyu la radiallahu anhu waqad suila te booba ñu ngi koy laaj wala waqad suila te booba laaj nañ ko an sheybi rasulillahi ci bejaaw yonantu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne na nekkoon na moom yonantu mm-hmm. ida dahana ndem diw na mm-hmm. rësahu boppam mm-hmm. lam yura minhu duñ ca gis cheybun be jaaw wa ida lam yaddahin su diwul ruya giseef minu ci be jaaw ba cheyun dara maanaam be jaaw bi dafa tuuti woon ba bu yonantu bi diwee bopp bi dootul feeñati su fekkee yonantu bi boppam bi diwut ko nag mm. danga gis lëf ci be jaaw ci bopp bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nee na xaddatanaa mm. nettali nañu mm. muhammad bnu amr mm. bunil walidi alkindiyu mm-hmm. dégg nga kindata mm-hmm. la askano alkoofiyu askano it koofiyu gii giir la giit bi dëkk la xaddatanaa nettali nañu yaxya bnu aadama sëriñ bu ñuy wax yaxya hmm. doomi aadama hmm. an sharikin mu jëlee ci sëriñ bu ñuy wax sharik hmm. an ubaydillahi mu jëlee ci sëriñ bu ñuy wax ubaydillah bini umara doomi umar an naafiin mu jëlee ci naafic an abdillahi mu jëlee ci saydna abdullahi bini umara doomi saydna umar ibn alxataab radiallahu tabaraka wa taala anhu qaala mu ne innama kaana naka nekkoon na shaybu rasulillahi be jaaw yonantu sallallahu alayhi wa sallam naxwan ci lu tolloog naxwan ci li nuru min ishrina ci ñaar shaaratan ci karaw bayda yu weex maanaam à peu près daal yonantu diggante bopp bi ak sikkim bi li ci nekkoon ñaar be jaaw Hmm? Hmm. naxwu mooy lu niroo hmm. naxwu dana firi wàll dana firi ak niroog waaye fii à peu près rek lay niroo lu tolloog naxwan lu tolloog min ishrina shaaratan nee na xaddasanaa nettali nañu abu kuraybin moo luy turam muhammadu bnul alaa'i mu ne xaddasanaa nettali nañu muaawiyatu bnu hishaamin an sheybaana hmm. jëlee ci sëriñ bu ñuy wax sheybaan hmm. an ikri an abi isxaaqa hmm. mu jëlee ci abu isxaaqa an ikrimata mu jëlee ci sëriñ bu ñuy wax ikrima an ibni abbasin mu jëlee ci abdullah ibni abbas radiyallahu anhuma yal na yàlla boole leen gërëm qaala mu ne qaala wax na abu bakrin seydina abu bakar bés wax na di tooñ yonent bi noonu yaa rasulallahi ay eh, yow yonantu xat sibtu yow ba jaaw nga di mm-hmm. ah, yow ba jaaw nga di mm-hmm. xam nga morom lañ yonantoo ñaari xat rek la ko magee mm-hmm. mu koy tooñ nag ndax yenn karaw yu be jaaw kawar yu be jaaw yu mu gis ci moom xaala mm. ah, yonantu tontu ko mm. ni ko shayyabat nii be jaawloo na ma huudun suratu huud wal ak suratul waaqia wa amma yatasaaluuna wa ida shamsu kuwirat saar yii mm. ñooma be jaawloo saar bu nekk la ca yàllay wax hmm. bi jaawloo na hmm. euh, ku ne hmm. sàkkaa yonantu bi nga xam ne nag sallallahu alayhi wa sallam moo gën a ragal yàlla ci li yàlla bind Huud yàlla def ko ci nettali yonantu yi yëpp ak seeni xeet ak fi mu jaar ñoom bi mu ñëwee ba ci moom nag hmm. muy wax ak moom ak i saxaabaam hmm. ba ca biir wax ja yàlla wax ko ci wax ju raglu hmm. mooy fastaqim kama umirta yonantu ni baaxee juddu fa mu war a juddoo màgg fa mu war a màggee li ndaw yi di jaar yépp mosu cee jaar mosta dem fu ñuy fooyee sallallahu alayhi ceet mm. yi le sax bu ni daan dem di fekkee di seetaan pecc ma ak tëgg ma mosu cee jaar moom mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. gën a dëgg ci li yàlla bind mm. gën a wóor ci li yàlla bind mm. ñu may ko soxna mu yore ko yor ba gën a rafet yàlla yónni ko mu yore yonantu gi yore ko gën a rafet ñu sonnal ko ci biir màkka mm-hmm. mu ànd boole li ko neex ak li ko naqadi yëpp ngir bégal yàlla subhanahu wa ñu lor ko loray àndandoom mu gàddaay taayifa mu dem fa ñu lor gën ko faa lor mu ñëwati sama borom rañaane ko ba mu agsi mu dem Medina ñu gën ko faa lor mu ànd ak ay saxaabaam di défendre lislaam ñu attaqué ko lu ëpp ñeent fukki yoon muy défendre l'islam fu jub gën a baaxee mu jublu fa fu mu bon ne kenn du ko fa gis ànd ak loolu yëpp yàlla naan ko fastaqim kama umirta jubal nañu la ko digale loolu xam nga jar na béjaaw mm-hmm. fastaqim kama amirta te loolu ci suratu Hud la ne mm-hmm. waaqiatit noonu mursalatit noonu amma yatasaaluuna noonu mm-hmm. wa idha shamsu kuwirat noonu dana ñëw ci euh, beneen riwaaya Hud ak ay mbokkam ñooma béjaawloo dafa mel ni moo ci topp sax xaddatanaa mm-hmm. nettali nañu sufyaan ibnu wakiin xaddatanaa mm-hmm. nettali nañu muhammad ibnu bishrin mm-hmm. an ali ibni an ali ibni saalihin jëlee ci sëriñ bi ñëw ali ibnu saalih an abi isxaqa an abi juhayfata jëlee ci sëriñ bu ñëw abu juhayfa radiallahu anhu yal na yàlla gërëm ko moom ñi jiitu yëpp qaalu ñoom ñëpp ñu ne qaaloo ñu maanaam an abi juhayfata jëlee ci abu juhayfa saxaabi la radiallahu anhu qaaloo dañoo wax maanaam lenn ci saxaaba ñoo wax kon ya yaa rasulallaahi e yow yonantu nun de gis nañ la xar chib yaa ngi bi jaaw si nun gis nañ la yaa ngi bi jaaw de qaala mu ne xat chayobat bi jaaloo na ma huud surtout huud wa axawaatuha ak mbokkam ci saar xaddatanaa mm-hmm. mm. nettali nañu mm. aliyu mm. sëriñ bu ñuy wax aliyu bnu juxrin mm-hmm. qaala mu ne xaddatanaa qaala mu ne xaddatanaa uh, am na fu mu ñëw xaddatanaa shuayb am na ñu def anbaana mm-hmm. ñaar yëpp mooy nettali nañu wala xabaare nañu rek mm-hmm. amma yatasaaluna ani nëbë il azim mm-hmm. nëbë mm-hmm. mooy xabaar bu rëy an baana xabaare nettali nañu Shuayb ibnu Safwaan an Abdil Malik ibnu Umayr an Iyaad jëlee ci Iyaad ibnu Laqit al Ujali an Abi Rimthata jëlee ci sëriñ bu ñuy Abi Rimtha at Taymi nag Taymu nag dafa am ay Taymu waaye Taymu kii kii moom Taymu Taymu Rabaab la bokk radiyallahu anhu qaala mu ne abu rimsa moomu ataymiyu saxaabi la radiallahu anhu ataytu dama mosa dikkal annabiya yorontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa maa yete booba ànd naag man ibnu doom lii gog ñeel na ma maa ngi ànd ak sama doom qaala mu ne fa araytuhu ma wan ko fa qultu ma wax lamma raaytuhu ba ma ko gisee ne ko haada nabiyullahi kii mooy yonentu yàlla muhammad mhm. kii mooy yonentu yàlla bi mhm. sallallahu alayhi wa sallam mhm. am nga doom gis xam ma yóbbu ko pour wan ko kuy yonentu bi sallallahu alayhi wa ne ba ma ko gisee ma ne ko yonentoo ngi ah, ataytu dikkal naa nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa may ita ànd naag man booba ibnun doom lii ko ñeel na ma waaw gi waaw xaal la xaala araytuhu ma wan ko ko fa qultu ma Hmm. lamma raaytuhu ba ma gisee yonantu ne ko haada kii tigi tigi nabiyullaahi hmm. Hmm. mooy yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bi yàlla bi mu ne waale yi te nekk na ci kaw yonantu bi sawbaani ñaari yére axdaraani yu nëtëx mooy yu verte waloo ñeel na ko chaarun kawar xad alaahu gog kawe na ko a cheybu be jaaw wa cheybuhu be jaaw ba ahmaru aju xonq la wa hmm? boo te béjaaw ba hmm. ahmaru aju xonq la hmm. loolu li muy li muy firi mooy amoon na euh, lëf ci béjaaw am nag ñuy wax ne daf ko cuuboon dégg nga cuub bu xonq moo tax mu meloon noonu aaya am na ñu ñu weddi loolu ne déeréet anas nee na li taxoon lenn ci kawaram yi xonq parfum ak diw jim ci daan def la moo dem ba xonqal euh, lenn ci kawar gi noonu nga am nga foog ne béjaaw buñ cuub la wala béjaaw bu xonq la mm-hmm. nee na xadis mm-hmm. mm-hmm. ju waaw ju mujj ji xaddasanaa nettali nañu ahmadu doom eh, ahmadu bnu maniin sëriñ la nee na xaddasanaa nettali nañu surayju bnu naamaan sëriñ la nee na xaddasanaa nettali nañu xamaad ibnu salamata hmm. bokk na ci sëriñ yi gën a mag ci sëriñ yi lislaam yi hmm. an simaak hmm. jëlee ci simaak ibn xarbin sëriñ la qaala mu ne qiila dañoo mos a wax li jaabir ñeel sayidna jaabir ibnu samura ibni samurata ba doomi samurata radiallahu anhu sahaabi la akaana ndax nekkoon na fi rasulillahi fii rasi rasulillahi mm-hmm. ci bopp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheybun mm-hmm. be jaaw mm-hmm. qaala mu ne déedéet lam yakun astaghfirullah qaala mu ne mm. lam yakun nekkutoon mm. fii rasi rasulillahi mm. dégg nga ci kawar ci bopp yonentu sallallahu alayhi wa sallam cheybun be jaaw illaa sha'ratun ndere ay kawar yu néew fii mafriqi rasihi yu nekkoon ci naqtalu boppam Mm. ida mm. mm. dahana ndem diw na ko wala ida dahana ndem diw na nga wax ndax eh, eh, du bokkul ak dahana ba it dahana la mm-hmm. ndem diw na mm-hmm. waaraahu na mm-hmm. nëbbu leen adduhun diw gi maanaam su diwee karaw ay karaw yu tuuti rek ci naqtalu boppam ñoo béjaa yoo xam ne su diwoo sax dootoo leen gisati sallallahu alayhi wa sallam hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم xayran. waaw mhm. incha allah.